si digga eh, left and right dem ba fële ak ñi ma jaakaar lool dinañ leen ko gën a baamtul waaye ma doon wone tam ne nekkul ne projet bi dafa ñëw dimbale leen rek ne mbéyam légume déedéet kele toog fële mister Ansumana Jaajo ami xam nga légume moom comme tamaate moom dina ci wax sànni ay kaddu ñëwuñ ne rek dimbale laa jox la engrais jiw bi rek ngeen béy tamaate MC déedéet tamaate am na luñ ko dee def wala tamaate su bëree soo jaayee lii mu des amuloo marché lekka nga lele xam nga denca ko daf dee gaaw a yaaxu soo loolu tam projet bi dina ci yëngatoo yéen ñoom turu ñoom ami faabure gars yi gistukat yi nekk agriculture c'est tamaate bi su desee sa loxo yëpp jarul lekka nga am nga lu doy naka nga dencee pour jëfandikoo ko yooyu yooyu yëpp na ci omba omba bi nga xam ne moom la leen projet bi indil so gannaaw si loolu tam di ñaan ne foo leen toolu ngeen ñaanal nit yi parce que en la en bi nag ñun ñëpp a ko bokkate waaye en kenn antanut en amut boppa bu nga xam ne en dañ la ko teg ne pour li nga xam ne mooy dimbale doomi aadama yi dem kanam nga antan ko muk yàlla rek moo la ko mun a antan loo te ñun ñaan tam ñu nit ñaan rek lañ mun a am si yéen ñaan en bi ñu en ñu ñëpp boo dooree ko si man ak ñëpp ñëpp ñëpp la bu yéen sax bokka ngeen ndax yàlla oyofal ñu en boobu mu aar ñu si pare mu dimbale ñu bi nga xam ne a ah, ñu mun koo doxalee comme ni ngeen ko buggee yéen at ñi ko indi nuñ ko buggee mbokk yi ah, soo leen ñu toppa si suñ ah, programme yi jamono ji ne am na ngeen faana boo xam ne moom lañ dee ooyee suma xool képp ko si am sa naxari xool mun ngaa yónni sa leeta su nekkee ne téléphone bi moo gën ci yéen mun ngeen a call 36 triple five three two three six triple five three two su nekkee ni email bee yomba si yéen tamit mun ngeen ko yónnee si jamono ji at yahoo dot com su nekkee ne nag email bi moo gën si yéen mun ngeen ko yónnee si jamono ji at yahoo dot su nekkee tamit ne am nga loo leen sànni si euh, programme yi jamono ji ba léegi tamit mun ngeen koo yónnee si suñ euh, web si suñ email adresse bi si jamono ji at yahoo dot com jamono ji at yahoo dot com waaye balaa ñoo dem na ñu gërëm Aida Seen Konte nga xam ne moo dugal loxom bi jàppale ñu soo gisee boppa bi rafet nga gis suñ sansey rafet rek nga xam ne Aida Seen moo si jaar waaye te nag Aida Seen moo jaar si boppa bu rafet bi ngeen di gis ni ñu ko wax jërëjëf ak euh, xale mi nga xam ne ñoo nekka fajaara mbokk yi lii lañ leen amaloon tey si suñu programme jamono ji mën la seen xarit Sira Cissé ba beneen dimaas This is me, Malik Jones. Join me for the interview. Issues and topics that makes you talking. Join me Wednesdays and on Sundays on the interview. Hello, I'm Tenny. Do you want to play games, listen to stories, and expand your vision? Join me every day on CTV. Li fess ci koy gis saa xamuñ fi joggé jógee fi mu ko euh, muy no di soos ngén ci ànd ak rohibité man ak yeen di programme bu bes fi ci GRTS dundi ni ñom mam demba ak dundi ni tay ànd ci sen harit oncle Sol Diagne very nice country. just sitting here doing nothing. This is precisely what you've been looking for. A vacation in some exotic destination. Green and always sunny. Amid ever blue skies, navigable rivers, and clean wide beaches. Begging for a lazy day. You gotta be in the destination which brings together all these qualities. It's 2013 and time to experience the ultimate break, savoring moments that will stay with you forever discover the characterful delight of this smiling ghost on the expedition with me, Ibrahim Ajata, at this time on GRTS. Valentine expressions. As we celebrate Valentine weekend with an added value under the distinguished Grand Chief patronage of His Excellency, the President of the Republic of the Gambia, Chair Professor Alhaji Dr. Yahya AJJ Jammeh, as the APRC party presents a spectacular fundraising gala dinner and a grand dance this Valentine weekend. On the 15th of February at the Senegambia Beach Hotel Gardens and the 16th of February at the Benjamin Hall, Paradise Suites Hotel, time 8 p.m. A special APRC trip with superstar, the queen of Malafusion, fusion, Vivian Shedid, singing ballads of love songs to share and reminisce love moments with you and your loved ones. Supported by top-rated Gambian stars, special attraction by the Zouk Maestro, Philip Montero, for the first time in the Gambia, it's Valentine weekend. Come and have fun as we celebrate Valentine with His Excellency. It's it's a grand exhibition of love and fun. Enjoy seasonal love with APRC.